yéen a ngi déglu VA FM rajo bu jiitu ci digital fii ci Tëngéej li si yéen ak mbay Dione dal leen ak jàmm defaraat leen toogaay yi trafic passeport diplomatique ga ca assemblée nationale ak député ya ca laale askan wi yépp di xaar nag ñu àtte leen waaye ba léegi justice ba yëyu ca yàbbi ubbil yéen a kaay bi di observateur député Mamadou Sall ak député Boubacar Biaye ba léegi kenn convoqué gu leen jéem a guñu sax dind seen immunité parlementaire di seen malaadi kiraay ya ca assemblée nationale journal bi nañu gaay yi dañoo bëgg a suturaal rek pouvoir bi ndax gis nañ ne bépp tuuxi duuna buy xewe ca assemblée nationale rek député APR yi la loolu moo tax sax ña far ak ñoom Boubacar Biaye ak du Sall ñoom dañu leen wax rek ñu noppi bañ a wax ca mbir ma waaye lu ñu noppi noppi bés dina ñëw ñu wax ndax dina jàkkaarloo ak justice te bala ñoo jàkkaarloo ak justice dina dindi seen immunité parlementaire wala ñu démissionnel seen bopp ca assemblée nationale exclusif yéene kaay yi nañu xeetu mbon gu ñu xalaat rek ca assemblée nationale lay xewee lu ci mel ni faux billet sàcc trafic passeport diplomatique lépp rek ca assemblée nationale ba lay xewee Mamadou Albert liste politique moom nee na assemblée nationale mooy askan wi kon nag moom assemblée nationale warul yor wii xeetu melokaan léegi askan wi falatuñu député yi waaye parti yi ñooy tànn seeni député du seen xam-xam du seen ak njub waaye mbirum yaama neex rek mooy daw ca assemblée nationale kii di Bakary Diouf di ab professeur ci université Cheikh Anta Diop moom nee na yi ci assemblée nationale fii ak askan wi a jóge formation politique yi ñoo war di former ay responsable war a formé waat askan wi ñoom itam am nañ ci cër ndax war nañoo xool bu baax a baax député yi ñuy voteel te njooj njaaj gi yematul rek ci député yi waaye léegi dem na sax ba ca maire ya ubbil yéene kaay bi di 24 heures Mamadou Diop Decroix moom mu ngi xam ne ne maire benn bokk yaakaar yi nekke wuñu fi lu dul jaay suuf ak lekk xaalisu askan wi ñoom seen poche la ñu fi nekkal waaye du askan wi te ab maire bu demee nag bay doxale noonu population bi ci boppam ñoom ñoo war a am fulla rek jële ko fa avocat yi kilifa ak Simon nag ñoom dolli nañu fulla ngir jële leen fa yéenekaay bi maître Khouraychi Ba maître Bamba Cissé maître Moussa Sarr maître Ciré Clédor li ak yeneen avocat yi kilifa ak simoye ñoom nag nee na ñu juge du deuxième cabinet de Abdoulaye Thioune nu mu mën a def rek dina fixer ab date d'audition ci simon ak kilifa rek ngir seeni mbir mën a leer la leer ba leer nag mooy sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général des mourides moom amu fi moroom ubbil yéenekaay bi di source a sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général des mourides ginnaaw ba mu joxee juróom fukki millions ci jamono yi ñu weesu ngir jàppale ko askanu Tuuba ci mbënd mi moom nag yëkkati waat na lu toll ci téeméeri million ak juróom fukk rek ngir jagleel ko askanu Touba fanweeri million ya waa Touba ci kanam la ko jox téeméeri million ak ñaar fukk ya ca des yépp nag mu jagleel ko askanu Touba wi mbënd mi sonal Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides yal na fi yàgg te yéen a ngi déglu VA FM